ci dogal bam naroon a jël moom si fay waaye récusation booba Yoro Moussa Diallo di agent judiciaire de l'État génn na ja ba set réew mi quotidien di laaj ana lu waral lu ni mel laajit bu ñu bari jibal enquête ni maa leen di jox tontu li jox kàddu maître Abdou Dialy Kane kenn ci avocat yi layeel état mu andi ci leeral ci biir yéenekaay bi maître Abdou du Kane ma ngay fàttali ni ba ñuy yëg ne juge bi ab jege ñaalem ca Ousmane Sonko lay liggéey ca mairie Ziguinchor booba àtte ba door na nee na it ba ñuy dugal récusation ba danoo yaakaaroon ne juge bi ci boppam dana raxasu ci àtte bi ba set jox ko keneen waaye nee na gis nañu ne daal boobaleb juge muy la koo lankoon moom maître Dialikane mu jàpp ci ne àttekat bi di saba si fay daa ñëwoon akub dogalam loolaa tax nag ba mu àttee ba joxe dogalam nee na ñu jàpp ni daal jéem a dabu yëf yi akub récusation amut njariñ waaye yéenekaay bi nee na li waral dëgg-dëgg état deltu ginnaaw mooy bañ ñaaree lu jël ci kanam Ousmane Sonko ndax loola lu doon yàq deru état la état mooma deltu na ginnaaw ci gëtu bés bi le jour mi ñu yegal itam ne agent judiciaire de l'état génn na ci récusation ba mu naroon def te juge Sabassy Faye Sonko moom booba jamono di résister yéenekaay bi dañu yegal gerewu xiifal gi mu sumba tey woote résistance Vox Populi ne li waral Sonko deltuwaat ci gerewu xiifal bi bokk na ci jàppale farandoom yu jigéen ya ñu tëj ca kasub Liberté 6 te ñu sumb ab gerewu xiifal ngir ñaawlu jafe-jafe ya ñu nekkee ca woowale kaso Les Échos ñu bu loola weesoo Ousmane Sonko yit bokk na ci li tax mu sumbaat gerewu xiifal mooy ñaawlu ni ñu ko téewee te teguwut ci yoon ci yoonu yëngu-yëngal la Ousmane Sonko teguwaat source a moo ni gisee ne ñu sumbaat na ab gerewu xiifal gannaaw ba mu ko njëkkee def titaloon lool ay ñoñam ndax yëf ya nam mittee woon ba wérgu yaram moom sooxee woon ca ci biir yéenekaay bi Sonko nga naan dama tàmbaliwaat gerewub xiifal ngir jàppale sama jigéen ña ñu tëj te teguñu ko fenn waaye itam ñaawlu ni nu ma tëjee tëjee ko patriote yu bari te teguñu ko fenn loola la ñu bëgg mu jeex Les ko feelu source a ne ko Sonko ay problème am xaaju te jeex yéenekaay bi duñu yëgal ne coowam ak Mame Mbaye Niang daanu ko yëkkatiwaat ñaar fukki fan ak juróom benn weeru octobre bi ca Cour suprême bi yey xeex bi waaye nin tëggee combat bi di enrôlement dossier bi Les Échos gis na ne dafa gaaw ba yegg ci lool hyper fast track la yéenekaay bi wax waxit ci li mën a tukkee ca booba lépp layoo mu cay ragal mooy condamnation définitive maanaam tëj ràpp sànni caabi ja yëf ya jeex Sidiki Kaba moom ci dalal xel la tàmbalee ayam ga ca ministère de l'intérieur Sud Quotidien di ñu yëgal ne ba muy jokkalante lenge yàq Antoine Félix Diome dalal na xel yi ci élection présidentielle bi nu dëkkmal ak ni nu koy tëggee nee na la yuy jaar yoon leer ngi naan élection yu leer ci Sénégal daa war mel ni ndox muy xel ci robinet dellu ci dalal xel gi Sidiki Kaba def démb ne mu ca jublu nag mooy bëgg da koo mooy opposition bi wane woon seen njàqare ak société civile bi naan wóolu wunu Sidiki Kaba mi war a tëgg élection présidentielle bu boobale élection Cheikh Bara Dolly Mbacké da caa bëgg doon candidat ci le témoin ma nga naan may candidat bi gën a kilin yégle na itam ci yéenekaay bi dugal na mooy balay kenn jël fiche de parrainage nga dugal caution Ousmane Sonko nag jàpp na ni dañu ko war a génne ci kaso bi mu bokk ci élection présidentielle bi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dolli na ca it ne taxawu danoo bëggoon a dugg ci groupe wàllu gannaaw ban tàqaliko Pastef waaye moom moo lànk ba tëdd ca naaj ba yéene kaay bi gis na it Mimi ragalul naaj ragalul coono ndax dimanche ma nga woon ca Vélingara Diaoubé Kolda Moussori altine la fa dem Soula Bali ca ji Mimi fa la ne woon booba jamono Pape Demba Bitèye ma nga ca teg ne fii ak njeextalu atum 2023 courant bu njëkk daanu ko fa defar waa grand place it yeggee ko ni ki l'observateur mi wone njàkkare ci pétrole bi nam yokkook bitim réew ak njeextal yi mën a am ci réew mi di Sénégal yeggee ñu it waxtaan wu yaatu wum sekk ak Moustapha Ba jëwriñ ju ñu denk gaf ak réew mi muy wax ci dundugu cher gi ak ñàkkum xëy gi dundugu cher googa nag réew mi quotidien mi ngi mel ni ku naan ñu kanam la jëm ndax ci yéenekaay bi boulanger yaa ngay artu ne mi moom faaw ñu yokk ko ndax courant dafa yokk diesel yokk réglementation bi ñu waxante woon it doxaluñ ko loola nag Amadou Gaye Ndiaye njiital fédération boulanger yu Sénégal ne ngir saafara ko amuñu yoon wu mën a jaar wudul yokk njëgu mburu mi 24 heures na yokk googa nag nar naa jur coow diggante état ak boulanger yi le quotidien mel ni ku naan ñu coow li tàmbale na ndax ci yéenekaay bi ma jambal jaañ bi ministère du commerce ma nga naan amul benn yokk bu nar am ci njëgu mburu mi yéenekaay bi ba mu tegee mburu mi daajal jël njàng meek njàngale mi joxe ca ay not yu bon a bon ndax ñàkkum jàngalekat ci gox yu mel ni Kolda soxla tey juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñeenti kat Tamba am jafe-jafe juróom benn téeméer ak juróom fukki jàngale jàngalekat topp ci Matam mu yittewoo juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay jàngalekat yéenekaay bi ne lii lépp nag a jur mooy école yu tëj ca yooyele gox ak élève ak i jàngalekat yuy ngir mën a jàng jaaree ko ci ay ayloo kalaas yi bu ñuy xëyee ñuy gonto taset nekk ca nooto département bu Thiès tiis lanu gontoo démba libération nenu ab tracteur moo fa yenu ay élève yu jàngi ba wàcc ñett ca ñoom am diggante fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom ñàkk seen bakkan kenn jële ca gaañu-gaañu yu metti ba ñu mujjee dagg tànk ya yéenekaay bi nañu ka doon dawal booba lépp tracteur te doon daw xel yu rëy ba ko gendarme ya tegee loxo dafa ne volant ba bloqué mënatut woon dara ca lam doon dawal booba jamono ci l'observateur ñetteewee mbir ma di ca indi ay seede yu daw yaram ñuy yëgle ci yéenekaay bi ne ñaari tracteur ñoo doon njëkkante kenn ki aw ci ñetti xale yu jigéen yi ñu ñàkk seen bakkan Aminata Ba wayjuru kenn ci ñooña ne sama néewub doom ba ma ko bëggee gis sax dañ ma ko aayee ay wi dox diggante Israël ak Palestine président Macky Sall ci réew mi quotidien booba jamono ma nga daan xel xalaatul ñu jël cay ngànnaay ngir fay ko Macky Sall ne rek ba juboo ndax waxtaan woow moo mën a indi jàmm ci le soleil it Macky Sall béralaat yooyele kàddu yemoo réew mi quotidien di ñu yeggee kàddu yi Serigne Saliou Dia coach U17 muy wax ci mondial bi ne match bu ne daanu ko jongante ni final réew mi it yëgal ñu Amara Diouf ak i ñoñam jox nañu leen démb drapeau national bi ñu war koo gàddu jëm ca woowale jongante bi ñetti weer kot desee ngir ñu soobu ci jongante coupe d'Afrique des nations stade moom